alors euh, parrainage bi étape la ci processus électoral bi ab jaaruwaay la rek. Mhm. jaaruwaay boo xam ne ni jarul bàkkoo jarul ndamoo bu dee ci ñun wala ci ñeneen gis naa nag nit ñi di ko théâtraliser ci participation bi nit ñi den saay di jubiler ci daan diw jàll na diw jàllul. Mhm. je crois parenage jarul jubiler dafa tax kenn koo xam ne ni filtre bi ak nga romb ko xam nga li tax ndax nit ñi yàlla doxal na Sénégal nit ñi mën nañoo nattante de. ku ne mën ngaa natt sa bopp waaye ku ne nit ñi mën nañ laa nattale tamit mais suñu candidat bon dafa choisir le parrainage des élus li ñuy woowee ci tubaab avantage comparatif. loo xam ne nii lu xew xew xew xew xew ëppalee nga ko sa morom nit nag booy fësal di wane da ngay am loo xam ne nii. moom nga am te ñi ci des kenn amu ko le président Macky Sall dafa toog benn ndaje maire muy wax ci wàllu parrainage di expliquer ci biir dialogue bi waxtaan mi ñu doon waxtaanee naka la ñu le parrainage citoyen naka lañ ci dugalee yeneen forme parrainage mhm. pour permettre à tous les candidats qui remplissent les critères de parrainage et qui remplissent les autres critères définis par les dispositions légales et réglementaires maanaam yi nga xam ne nii li ñu teg ci wàllu doxalin méngali nag li nga indi nga mën a participer mu ni waaye yéen nag wax dëgg yàlla yéen am ngeen sax lu kenn amul sur les cinq cent cinquante huit collectivités territoriales du Sénégal mm-hmm. ñu laaj laaj ci cent vingt élus locaux kan moo ko fi mën a am que Benno Bokk Yaakaar que Benno Bokk Yaakaar nit nag booy dox di dem da ngay afficher say avantages comparatifs li ñuy woowee optimisation loo xam ne nii doo ci bëri coono te résultat bi dina taxaw mais mais